am mbégte contentement baax a baax a baax nee la ñu ngi at tey ci banlieue bi xam nga gis démb ak barki démb ay image yu day wa yaram ay image yu yërmande yu am fële ca campénal mu nekk naqaru doomu adama yëpp nag parce que ñu bari seen seen waajur yi bari nelawuñu di booba léegi parce que seen njaboot ya fa nekk mais image yooyu ba ngeen ko jisee en tant tey jeune wala en tant que tey xale boo xamante ne tey jafe-jafe yi nga tey am na sa mbokk fa nekkoon wala am na sa koo xamante ne sa xarit la mu ngi fa image bi nu non liñ ko gisee moom mooy lu yoon ndax ak doomu aadama quoi ñëpp gis nañ ko waaw ah, ñun fee xam nañ la fa nekk waaw tey jii ku sa mbokk nekkul sa mag a fa wala sa rak wala sa grand frère waaw am na yoo xam ne rafetul quoi ndax ñun amoon nañ yaakaar tey jii nii nit tey jii suñu yor réew mi muy muy Diomaye ak songo ndax ñun guddi ba ñuy njëkk a libéré Ousmane Sonko ñun tëdduñu si lal waaw ñun yaakaaroon tey jii suñu naqar yëpp ñun tey jii nii quoi luñ naqari woon yëpp tey dinañu neex ndax songo songo guddi bañ ko bàyyee ñun tëdduñu si lal dañoo zumbale ba fajar waaw nag feene tey jii nii ñoom bu ñu bëggee tey lu fa nekk yëpp nañ jàpp si garde yi man xam naa si ay garde ñoo xam ne ñoom loolu mooy seen liggéey seen salaire doyu leen lu ñuy dugalal booy noonu ñoom loolu noonu si la ñuy mën a joxe dépasse ndax ñoom weer ba weer lañ leen di fay seen salaire tey ji yow mi jël man nekk foofu di ngay wax sa yaay wala sa papa wala sa mag ñu ne la ah booy dugalal ma dara waaw tey ji junni yooyu nga leen dugalal wala ñaari junni moom la ñuy yónnee seen kër yi ndax ndax seen salaire ñëwagul waaw ñoom loolu lañ dafa dugg yëpp ñoo ko fay dugal muy pon cigarette yamba lépp ñoom ñoo ko fay dugal man xam naa si ay garde waaw am na yoo xam rafetul quoi waaw tey bu mu metti rek ñu bëgg a jël lépp lii sëf leen ko quoi ndax ñun suñuy mbokk ñu ngi fa ñoo xam suñuy dereel lañ ñun jaar nañ foo xam nañ li fa nekk ku ne xam nañ ñu teel benn paraat ak bougé woo dafa metti waxuma la ñu tëj la tëj ay mala lañ koy def quoi xam nga yàlla mooy tege natu waaw yàlla mooy tege natu quoi mais tey yii ni nii munoo nattu mun laa tegu ba pare ñuy yëkkati ay laqaru masa di ko sànni si néegi wala di taal saxaar soosu baaxul tey nañ delloo si waa suñu xel quoi tey tamit Diomaye wala Sonko ñu amoon nañ yaakaar si ñoom ndax ñoom xam nañ lu nekk fenee dund nañ métit boobu waaw nee nañ nañ nañ kii nañ nañ gëstu ñu nekk fee bàyyi fee dafa metti ñoom am nañ yaakaar si ñoom torop korité bi bàyyiwuñ garas korité bi bàyyiwoo leen ñu ñu yaakaar si yéen torop tëbasi bi ñoo ngeen bàyyi trois cent loolu jaaduwul Macky Sall lu mu bon bon da doon bàyyi sept cent wala huit cent ñoom waruñoo ñëw ñu am yaakaar si ñoom ñuy bàyyi 300 te Korité bàyyiwuñ waaw. am na yoo xam rafetul quoi tey jii ñoom booy lu gën a tax ñuy grève ni dañoo amoon yaakaar si ñoom dañoo amoon yaakaar si ñoom Korité bàyyi woo ko tëba si ñëw nga bàyyi 300 jaaduwul 300 njëgu benn néeg la benn néeg day am 450 personnes nga bàyyi 300 personnes si garage benn néeg rek day am 450 personnes benn néeg si paquetas bu la yàlla xiree Aliou ak Kanjoole bi la seeraas bi <laughs> non yow jàmbaar fee yëfu jàmbaar dëgg la jàmbaar yéen ñuy xam foofu noonu ñoom jaalo gars yi yóbbu nañ leen ñoom dinañ xam lu fa nekk ñu ray booy fan yee keroog Pikine police Pikine waaw Amet Taya booy boobu ñu ray Pikine ñoom Diallo booy gars yi ñu essence ñoom ñuy yëg mitit bi gars yi tamit nañ delloo si ak gars yi quoi mais xale du juum juumaat waaw ñun jàmbaar foo leen taxay wax instant yi wax xale du juum juumaat de ñun kenn duñu yem ñaari yoon góor ñu ne fii ngay teg sa tànk waaw nañ jàppale gars yi quoi li dafa métti ba sëñ Fall Mbaye ñun ñii rek tàngaay instant yi ñuy génne woo waxuma ñu nekk fee ku si nekk tamit da nga am xoolu yërmande bàyyi waaw jomaay bàyyi jàppale ñu bàyyi sa bale boobu da nga war a bale kii bi quoi yi dem ñu indi nga bale bañ far la bàyyi jàppaleel gars yi quoi ñu mooy loolu. prison bi jafe-jafe yi tamit. billaay dafa nekkin bi tëddaay bi. man gis naa lu ñuy def man nekkoon naa employé affaire yi ñuy def si togg yi booy duñ mën a dem douche man na may wax lu ñuy ba ñuy togg dañ siy def garab affaire booy duñ mën a dem douche dañuy togg ay deux jours duñ dem douche loolu jaaduwul quoi jaaduwul duñ mën a dem douche. danañ la fay. ah danañ la fay duñ la fay. duñ la fay yow daa employé yow boo nekkee employé yow da def tey yàlla tax ndax li ngay def noonu say mbokk jelmaan mooy tax nga koy def ñu dañuy sàcc ay kirmasi di si def ndax bëgg mu neex mais ñoom duñ ko nangu ñun ñooy sàcc ay kirmasi poobar def ko si cin bi bëgg jelmaani kontaan waaw mais ñoom taxul ñuy def ne ñu jelmaani moo tax ñuy def waaw ñun ne man ma doon sàcc ñaari kirmasi ñett jël def def si cin bi ndax bëgg mu saf ñu naan mooy ma xooñ ñu naan defal ma sos kaali yooyu yëpp ma koy sàcc di ko dugal dañ leen jàppale ko baay billaay wallaay ba tar dafa baay billaay. foo nañu camp pénal moo gën a stable ci ci prison yëpp. camp pénal moom day yàq xale camp pénal day yàq xale baaxul ndax yu bëri tey yi xam nga ñu tee benn place ñu tee benn place kooku mënul génn dem di jëli ji dara ñun ñëpp xam nañ lu fay dugg yëpp ay nit dafa ko dugal garde yooyu ñoom ñoo fay dugal quoi ñun xamante nañ xam naa si ay garde mën na bañ a tudd tur fii wala ma wax tur ay ñoom ñooyu ñoo ko fay dugal ndax ñoom si lañ mën a am seen dépense ndax seen salaire day yàgg un mois bala ngaa fayeeku day yàgg. mais prison prison si am na mafia yooyu de. yëpp am na mafia. chef franc yaa may dégg noonu ngay géemee chef fara xam nga ma waaw mais am na ay garde jàmbaar nag ay chef lébu waaw ay chef far ay chef lébu chef Malick ñooñu laal ay jàmbaar lañ ñooñu waaw bëgguñu kuy néewal doole nit wala dara bëgguñu ko waaw dañuy dawal gars yi yërmaane billaahi barki yàlla gars yi gars lañ jàppale ndaw ñi ko waa ndax ndaw ñi ëllëg ñooy yor réew mi lii la rek day jeex waaw te cibiti am na booy cibiti ñoom moom seen bopp de wër rek yàlla cibiti nii mooy loolu ñoom cibiti buñ la rombee dañuy sëgg dañuy làqatu waaw duñ bëgg nga gis la xooyul booy booy ay jàmbaar lañ de ay waaw ah, amaan yàlla mooy tege nattu rek waaw billaay non bañ fa duggee ñun tey gën nañoo delloo si xel suñ borom xamal nañu lu bëri ndax nee naa la léegi-léegi xale du juum-juumaat a ah, nee la borom bu la tegee nattu rek dala bëgg foofu boo fa duggee yow tey yii nii nii nii ndax dugg nga fa tey mooy garde yi ñu sol tennis say morom góor lañ da ngay ñëw ñu futi la dañ lay futti ba nga ba nga soo xuuri nii da ngay futti ba nga seet wecc si yooyu rafetul quoi si yow sa morom papa nga koy futti mu ñëw nga koy summi lool rafetul loolu baaxul quoi tey yow boo fa duggee di nga waaw di nga sa xel suñ borom di nga xam ne tamit am na yu bëri yow erreur yoo xam ne doo ko nangoo defaat waaw tey jii fii yëpp booy amul ku fi nangoo def erreur ndax xam nañ lu nekk fee waaw loolu la quoi nañ nañ bàyyi xel gars yi bàyyi xel ñu nekk fee ñun suñu xel ñu ngi si ñoom de billaay wallaay wa taala ñun ñun ñii rek nelawuñ ñun ñii rek nelawuñ dañuy toog nii di xalaat foofu tëdd di xalaat foofu buñ mënoon buñ leen mënoon génnee foofu léegi léegi dañ leen fay génnee ndax Sonko ak Diomaye Diomaye ma amoon nañ amoon nañ si ñoom yaakaar trop trop trop trop billaay wallaay wa taala ndax guddi bañ libéré Sonko rek ñun dañoo zubale ba fajar ndax loolu amoon nañ yaakaar si yow barki yàlla na yow jàmbaar nga amaana yow bu dul dara tee nañ la fi ñun ñu koy naqaru tey ñoom mënu ñoo nekk fee tamit di dund loo xam ne tamit xam nga doon fa ay nit bal sànni nañ fa laxaru maser rafetul billaay wallaay waaye tamit même ba ci pen yi ah, pen yi métti dem taxaw gis waaw ay cinq ans dix ans quinze ans vingt cinq ans ay trente ans yow na tey na nga mën a tëddee 30 ans ba di xalaat say mbokk ñu la si tegal di la bunu xatal di gere foofu mooy yow sa aduna yàqu na da ngay téye sa bopp xoolal vidéo yi am na ñoo xam taluñu dara dañuy téye seen bopp dañ naa ay ñoom fuñ jëm fa lañ jëm ñoo xam defuñu dara man gis naa ñoo xam defuñu dara ay booy ndaw billaay ay booy ndaw pël Fuuta yi ñoo fa nag moo wax la pël Fuuta yi pël Fuuta ay ceesu viol ay damaa def ni sër bi ay damaa laa silib bi cinq ans yeggoo sax cinq ans dix ans rafetul Pël Fuuta waaw nañ moytu ngeli nañ moytu waaw buñ dëñ kumpa lu nekk si sër bi ba fa dëñ kumpa ba demee six cinq ans la lay wala dix waaw dañuy réglé te seen ñoxor paa yi dañuy feebar paa yi feebar man su doon sama doon bëgg-bëgg man paa ñu defar leen prison à part ndax mag mag kilifa la quoi waaw mag mag mag du yàlla waaye yàgg naa yàlla mag du yàlla waaye yàgg naa yàlla nañ jàppale mag yi gesuwaat ñu nekk ci biir xool mag ñi toppatoo leen defal leen ay lekk yu baax na ñoom ay mag lañ ko waa natu natu natu fu ne la fekk fu ne la lay fekk nañ jàppale waa ndaw ñi waaw Sénégal mu doon beneen Sénégal ñun feelee bitim réew ñu fay tëj gënuñu ñu dañ leen jox ñuy lekk ba suur jox ay tenue billaay wallaay dañuy woote seen mbokk dañ leen gis kontaan ñu nekk si appel bi tamit ñun gënuñu doon noobul quoi ama dof yi ñu wérul ñu baaleel ñu dem ndax ñu wérul xam nga billaahi bak sëñ Fallou Mbacké bàyyi yooyu ku dem ba ko ba ko waaw ànd day juge yow boo ñëwee indi say kéedu dof la dañ la war a bàyyi kooku yoon toppeewu la dara ñun xam nañ li yoon wax justice waaw ah avocat waaw kii procureur fu mu fu mu fu mu ne para wax amatu fa juge da laa war a bàyyi nga ñibbi para question foo ko déggee mooy yow da a ñibbi waaw ñun xam nañ justice ñu bëgg a yàgg justice nañu bàyyi xel nañu ndaw ñi ñu bàyyi xel ndaw ñi waaw di ñaan di di kii kilifa yi nag kilifa yi waaw nañ nañu ñaanal baax kilifa yi kii waaw ñaanal baay gars yi baay ñu jàppale Jelmani Baay gars yi sonn nañ billaay wallaay soo ba léegi amatuñ fi ñu leen déggee am na benn sëriñ Fall bu ñu fa tëj 30 ans ñoo tiit Mbàkke benn Mbàkke gis nga gis nga ay gis wala Mbàkke Mbàkke bàyyi sa Mbàkke Mbàkke yi xam nga yooyu noonu yooyu noonu ñaaw na ko waa Baay billaay wallaay jomaay daal jomaay nañ si jàppale ko waa Baay ñun amuñu woon yaakaar si moom séntuñu si moom si moom lii nañu jàppale bu baax baax baax jaajëf waay waaw merci waay